mbokk yi tey couple yu bari dañoo am problème subhanallah tey sëy yu bari subhanallah mooy li yàlla waxoon ca mooy ca baas ba jaale baynakum mawaddatan wa rahma daa mel ni newatu fa mooy cofeel boobu noonu amour waaye rahma ne boobu miséricorde la clémence tey moo tax ba loolu deñee ci la problème yi commencé di bari ci biir kër yi ku jigéen ki bàyyiwul xel borom këram tu ko subhanallah ku góor ki ramatul soxnaam subhanallah te nag dafa waroon neex kër gi dafa war a nekk benn genre aljanna bu ndaw sa digganteeg sa soxna sa digganteeg sa borom kër dafa war a neex ba nga xamante ni soo génnee da ngay yàqamti ñëwaat waaye tey lan moo tax kër yi problème yi nekk fa lan moo tax lan mooy vraiment li li ñuy gis li mooy conséquence yi mais lan mooy causes yi bokk na ci vraiment ci causes Euh, cause yi bari na lool waaye dinañ ci jël tuuti tuuti bokk na ci cause yi mooy wax dëgg yàlla sori diine mooy sori jàngale jàngaluñu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da ngay gis ku góor koo xamante ni amaana sax xam na lislaam amaana sax xam na sunna amaana sax waaye jëfe bi des na mooy yërmande bi des na subhanallah da ngay gis koo xamante ni góor dafa war a am yërmande ci soxnaam dafa war a am nekk ko attention ne ci soxnaam dafa war a jox mooy importance soxnaam dafa war a jox yitte soxnaam cest di sa priorité tey mooy sa soxna fexeel sa soxna kontaan fexeel sa soxna subhanallah mooy nga fàttalee ko nga fàttaloo ko souci bépp souci sa soxna avant tout joxal sa soxna gëdd nga bëgg ko kontaan ci moom taxawu ko zahiran wa baatinan sa soxna wala say soxna waaye ku jigéen ki tamit na nga ormal sa borom kër respectel sa borom kër xamal ni sa borom kër avant tout kon bi ci jiitu benn boobu rek la ñu jël moom mooy que ni dégg dégg diine mooy lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax naan man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin celui à qui Allah veut du bien il lui fait comprendre sa religion mooy que ni dégg diine waxuñu moqal téere de mais dégg diine mooy ànd ak jëf ànd ak jikko ju rafet jigéen boo koy takk dafa am critère macha allah bi ci jiitu mooy na fekk borom diine am jikko ju rafet dal teey góor macha allah diine diin wa xuluq mooy que ni jikko tey góor ñu bari dañoo dañoo dëgër dañoo diis subhanallah seen soxna daanaka dafay tiit alors que non ci biir kër gi na neex kër gi na oyof kër gi na macha allah un petit paradis en fait dans lay foyers kon bàyyil xel sa borom kër waaye bàyyil xel sa soxna nañu bàyyi xel suñu kër yi ndax yàlla dinañu ko laaj yowmal qiyaama li ñu lay laaj mooy sa njaboot sa njaboot sa njaboot kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ñun ñépp dañ ñoo te dinañ ñu laaj lu ñu sàmmloo li te yàlla nee na ah nañ la laaj mooy sa njaboot kon bàyyi xel sa njaboot yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara naaran waquuduha annaasu walxijaara yàlla na yàlla ñu ci safara kon na neex kër yi mooy priorité waaye du liggéeykaay ba kër yi mooy priorité waaye du mbedd mi kër yi d'abord yoog sa soxna yoog sa borom kër ak sa njaboot ba biir aljanna yàlla na yàlla dugal ñu aljanna ñun ñépp sàmm ñu may ñu jikko ju rafet jikko yërmande may ñu jikko ju rafet li yàlla tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa la ala xuluqin azim wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin te nag ñun ñëpp yàlla daf ñoo ne laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun xasana nañ topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak rafetoon jikko sallallahu alayhi wa sallam